politique de la zone di leen sant di leen gërëm di wax ne bisu tey bi wax dëgg yàlla rafet na neex na am na orientation waaye yooyu yëpp dañ koy boole dellu sant yàlla dimbali ba ñu teewee bis bi lépp bu mutee tey lépp bu waaye liñ ci mënoon yokk mooy nga bis bu amee couleur mu am ambiance ñëpp ko kontaan ASC am satisfaction jeune bi am satisfaction ñu ko organiser am satisfaction c'est grâce à qui c'est grâce au parrain son excellence monsieur le maire ci loolu dama naan nañ ko sant ñaanal ko yàlla fu mu bëgg a yëg yàlla ko fa ndaxte nag li muy def ci zone bi du lu ñuy laam-laame yàgg na zone bi bër na ay problématique yu ko yu ko doon jëriñ mu ngi ciy taxaw guddi ak bëccëg tout dernièrement def na fi loo xamante ne c'était un rêve pendant des années moom ci jamono yi weesu rek yàggut posé na première pierre pour clôturer terrain bi loolu acte boo xamante ne la. jeune bi yàgg na di ko ñaan yàgg na di ko daw yàlla dogal avec son excellence monsieur le maire mu poser la première pierre li ñu mën a wax foofu mooy xel dal na man de connaissant l' homme connaissant la personne connaissant l' autorité qui est dama naan wax na ko posé na première pierre kon na dal la réalisation c'est bientôt la réalisation c'est bientôt te gëm la saison prochaine daañu mën a évoluer dans un terrain clôturé ndax comme jël na engagement bi rek xam naa dina ko def bu ci Yàlla doole bu ci Yàlla euh, dafay jàmm incha allahu rabbi dina ko defar dina ko clôturer ba ñëpp di ci seen bopp ndaxte clôture bi tamit jeune bi village villageois wala ASC gis ci seen bopp tamit commune dina ci gis boppam ndaxte mën na am ay yu mu mën a générer après côté économique yooyu yëpp ci biir la kon donc la demande urgente à l'heure c'est le c'est c'est c'est la clôture du terrain te moom wax na ko def na premier pas li des mooy la réalisation li des mooy la clôture moom dina ko def loolu li am solo la loolu la instant ne mooy la demande bi nga xam te ne moo gën a urgente à l'heure ci may mujjale mooy que nañu sant tamit benn commission bu nekk fële à la mairie mooy commission jeunesse e sport dirigée par des personnes je vais nommer monsieur Mamadou Ndiaye Lote Birama ainsi de suite ñoom seen abnégation seen détermination seen ñàkk caaxaan tax na ba journée bi tey biñ ko keroog biñ ko jàppee nelawuñu guddi nelawuñu bëccëg def nañ ko seen yitt moo tax li ñu gis tey mu doy ñu li ñu gis tey mu fees bët kon donc liggéey nañu bu baax a baax mënuma jeexal tamit. te du ma félicité te du ma encouragé te du gërëm sama équipe moy la zone 8 la zone 8 de de vraiment nous formons une belle équipe nous formons une grande équipe avec détermination nous am nañu cohésion bu nekk suñu biir ngal la nañ ko sama continuer ci ndax té jeunes yi wala yeneen jeunes lañuy am wala fañuy ñuy ñun loolu jommuñu il suffit tout simplement ñu gëm suñu bopp ñu liggéey mënuma jaxal tamit te du ma gërëm te du ma sant ODCAV ODCAV jeune bi nekk na jeune bo xam vraiment def na ci lu bari xam na ci lu bari te vraiment jeune bi ñor na ko à ce que jeune bi avancé am avancement loolu ñor na leen mënuñ ci jeexal tamit te duñu sant monsieur Ibrahima Gueye depuis daaw ba léegi mu ngi ci zone bi am na réalité yu bari xam na ko ci zone bi jeune bi yenn acquisition yi ci wàllum connaissance ci wàllum expérience ci liggéeyu zone buñ ko amee tey mom sa participation a été vraiment capital ci lolu comme guddi euh ñepp am nañu fenen fu ñu wara a jëm dañuy gattal waye dañuy sant ñepp di gërëm ñepp di féliciter encore une fois monsieur le maire de parrain assalamualaikum mbooloo mi fi tew yépp ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm ci téway bi ci teewaay bu rafet bi nga xam ne fekk nañ ko fii ci zone huit B bu Suun muy zone boo xam ne yàgg nañu di organiser mu mel nii yàlla dogal ren ji ñu tànn bis bi ne daal seen maire lañ koy jagle pour parrainer ko ko bi muy am fekkuma fi fekk maa ngi bitim réew bi ma waxtaanee ak sama gaa ñi ma xamal leen ne man personnellement dinaa écourter sama séjour ngir ñëw fekk bis bi ndax am na message bu am solo boo xam ne bëgg naa ko délivrer ci jour bi lolu mo waral tay suñu téway fi mais ngeen may ma bala may continuer ma remercier ñi nga xamné ño nekkon ci sama ginnaw té ki nekk ci bop bi di sama première adjointe di madame le maire ak équipe bi nga xam ne ànd nañu di liggéey te kii dirige équipe bi ci wàllu jeunesse bi ci commune bi di Mamadou Ndiaye Lota mention spéciale vraiment toute ma confiance yaag équipe bi nga àndal yëpp su ma ko tuddee rek tudd naa ñi nga xam ne ñoom la àndal yëpp ci équipe bi muy ñoom Birama di ñoom Ibrahima Ciss et Diouf Mortala et ñi ngeen ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi nekk ci biir ku ma ci tuddul aussi nga xam ne su ma tuddee ki ne ci bopp bi rek yéen ñëpp laa tudd ci loolu lu mel nii yàgg na am saa yu amee dama naan bàyyi ñenn ci samay adjoint ñu jël parrainage bi mais comme ni ma ko waxee léegi dafa am message bu am solo boo xam ne bëgg naa ko délivrer à l'endroit de la jeunesse loolu moo tax ma ne naa ñëw teewal sama bopp accepté aussi parrainage bi nga xam ne moom la ma zone bi parrainé ñu leen di remercier di leen gërëm ci loolu le président de la zone mën nga jël attaché m'a chargé de communication mu ngi il a les contrats à paix pour les ak l'entrepreneur, pour que les travaux de clôture stade bi mën commencer dans les meilleurs délais je pense que lui, dans la guerre, nous avons mu il a commencé à na nous commencer liggéey bi nous ngeen surveiller ko da nga xam ne balaa muy yàgg travaux yi am na durée boo xam ne moom la war a durée travaux yi jeex ngeen jël seen stade ñu ñëw fii inauguré ko pour ngeen xam ne du ay promesse mais c'est des c'est des réalités dafa tolloog bañ ko waxee depuis mois de juillet depuis mois de juillet la ñu waxoon ne la ñu posé woon première pierre bi mais xam ngeen ne dafa am lu ñoo tuddee des démarches administratives ndax état dafa am nu muy doxee ñu xëy xëy rek débloqué ay millions naan béréb sàngam lañ koy def te jaarul ci démarche yi bokkoon na sax ci li nga xam ne mooy sama bëgg-bëgg mooy zone bi ci seen bopp manam ñu dëkk ci gox bi ñu entrepreneur capacité financière pour mën def mais malheureusement nous avons am te buñ ko bi appel d'offre bi ba sélectionné entrepreneur bi nga xam mu ngi ànd ak contrat bi léegi dans les semaines euh, dans les jours à venir pour que politique bi mën terminé mooy di leen xamal ne en tout cas commune bi pare na pour gunge jeunesse bi ci mbooleem activité yoo xam ne ñu ngi koy def ci foofu aussi ma di ci profité di xamal jeunesse bi ne dama bëgg seen i activité aussi ngeen xaw ko orienté bañ ko yemal rek ci nawetaan parce que man je trouve que il est aberrant quand même que chaque année financement yëpp di jëm rek ci nawetaan di dem ci nawetaan je ne dis pas nawetaan yi nañ ko bàyyi nañ ko continuer mais nag nañu orienté action yi pour que jeunes yi am activité créative de revenu yoo xam et ëllëg loolu dina nous apporter quelque chose je pense que loolu bu amé moy li nga xamné mo gën te loolu pour que avec mes commissions ngeen jige ko dinañu def benn séminaire dina chargé le président de la commission mu organiser des séminaire pour xamné tout les ASC dañuy ñëw fekke ko pour xool nan lañ leen war a mën a orienté jàppale bi ba jeunesse bi mun a am ay activités génératrices de revenus yoo xam ne mu ngi koy def loolu je pense que lu am solo la message boobu mooy bi nga xam ne doon naa leen ko bëgg a livré fi may jeexale nag mooy di présenter samay meilleurs vœux la commune de Kër Moussa ndax damay profité de occasion bi ndax yombul tey le 31 décembre dans quelques heures le président de la République Macky Sall faut adresser la population sénégalaise pour wax ak bonne une occasion pour vous. C'est ko saisir de ji pour que l'Union Européenne présente présenter leen des meilleures et bonnes et heureuses années 2018 je vous remercie. bon l'équipe gagnante l'équipe gagnante Dieu sait que. Le moment où je vous parle, je ne connais même pas l'équipe qui a gagné. Mais l'équipe gagnante, nous préparé une fête, nous allons faire un acte de top. Pour la politique je pense que ce n'est je, Aujourd'hui, nous avons posé la première pierre depuis le mois de juillet, si je ne me trompe pas, entre le 18 juillet 2017. Nous n'avons pas pu faire la réalisation. Pourquoi Pas parce qu'il y a les normes euh, des appels d'offres. Mon souhait était que l'entrepreneur vient de la zone. Ça, c'est pour euh, euh, pousser quand même les entrepreneurs qui sont dans la zone. Mais malheureusement, nous avons lancé appel d'offres. Il y a de cela, depuis quelques mois, euh, Il y a une, entreprise qui a été sélectionnée je pense que c'est l'entreprise Alhamdulillah. Donc Alhamdulillah, nous disons tous Alhamdulillah. Il va se charger de l'exécution de ce programme et pour bientôt. Les contrats ont été signés, les contrats ont été signés, les avances vont être décaissées après les fêtes et l'entrepreneur va bientôt commencer les travaux. Il est avec le président de la zone et toute la jeunesse pour suivre la clôture de cet essence et qui ne serait qu'un bon souvenir. Le coût de, cette clôture, je pense que c'est environ 20 millions comme j'ai des relais qui font très bien le travail, on m'a dit que toutes les ASC participées ont reçu une récompense, c'est-à-dire un jeu de maillot. Les euh, ASC finalistes, chacune a reçu deux jeux de maillot, un, un, jeu de boulot et un jeu de maillot, plus une coupe. Le message que je vais lancer à ma jeunesse, c'est d'être unis solidaire et travailler pour le développement de notre zone. Parce que seul le travail paye. Qu'on laisse les querelles, qu'on laisse les, les, les, les, les considérations partisanes, qu'on travaille pour l'épanouissement et pour le développement de notre zone. C'est ça notre credo et c'est ça qui est important.